incha allah sunna ca kaw ca kanam rek man daal li may dénk sa bopp di ko dénk ñëpp mm-hmm. nit moom bu la dara jaral nga gannaawal sunna mm-hmm. bu la alalu àdduna jaral mm-hmm. bu la ut tur jaral bu la ut mbooloo jaral ndax loolu lépp ñëwoon na yonant bi yonant bi bañ waaye lan la bëggoon fayu yàlla fayu yàlla na ku ko bëgg ah il faut àdduna xaw a saf tuuti ci yow ndax àdduna yaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir àdduna moom kaso la pour ki gëm li tax mu nekk kaso pour ki gëm mooy ki gëm dafa war a dugg fii tënku ci jaamu yàlla bu ko demee fële yàlla fay ko so moo tax loolu ñun ñëpp la wax kon maa ngi woo ñëpp ci ñuy woote ci yoon yàlla nañ ci gën a góor góorgóorlu jigéen ji mën na ko góor gi mën na ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu leen di nuyu leen ziyaara yamati mbégte fii ci madinatul munawara daje ak suñu beneen sëriñ beneen mbokk di suñu ustaaz yal na ko yàlla sàmm ustaaz Alpha Ba euh, ñu am ci mbégte lool lool lool sax euh, maa ngi koy bàyyee kàddu gi euh, mu nuyoo waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala xayaakumullahu jamian Cheikh Ousmane ñu ngi lay ziar di am mbégte ci daje bu ñu daje yow ci bërëb bu sol bu sell bi Umar Aw Ousmane rek laay wax euh, di bërëbu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa euh, lépp loolu fi wut si yàlla nangu ko te barkeel ko def ko seen misaanu wa xasanaat waaw Cheikh Alpha temps yi coow li bëri na de nu mu demee noonu. waa affaire yi leer rek. waaw ah. ah, affaire yi moom saa yu leer rek coow day bëri. Ah. <laughs> waaw mu ne nii picc yi ñoo commencé génn ci kaaf yi. picc yoo commencé génn commencé génn di naaw. waaw te gars yi nag bu picc yi di naaw arrangé wu leen bu ñu sañoon. picc yi mhm. dañ leen di tëj rek njatt leen ci kaaf yi ñu bañ yëngatu. léegi picc yi nag dafa am lu ñuy naaw picc boo leen ay dugub leen sànni ay ceeb dañuy dañuy riposté dañuy naaw te daaw bi loola nag daaw bi dugub beeg ceeb bi leen di sànni boo leen sànnee rek mhm. par force dañuy fi génn loolu nag moo waral coow yi mhm. ndax entreprise yi ñooy waaj a daanu ñooy waaj a màpp waaw entreprise ndaxaate yi mhm. entreprise dundee ci kaw nit ñi dundee taalibe yi di leen nax ci turu diine di lekk seen alal ci tuuru diine loolu nag mooy waaj a màbb loolu nag dana bay màbb rek à chaque fois coow yi day day bëri quoi waaw mais daaw moom saa yu coow yu bëree rek xamal ni mu ngi avancé waaw daaw moom muy avancé bu baax coow li su baree rek xamal ni mooy mu ngi dem kay ci picc yooyu lay dellu sax uh-huh. picc yi mm-hmm. kaaf yi ñu tijjeeku picc yi di naaw man mm-hmm. kay yi naawul des foofu ñoo ma jaaxal mm-hmm. ginnaaw bi kaaf ci waaw ñu naawul des rek xëy na nañ continuer rek bu ñu continuer di wax rek. xëy na ñoom bis dina ñëw dinañu <laughs> dinañu fipp naaw. waaw léegi nag gars yi nag yaa ma gën a xam gaay yi. léeg ñu naawul ni gars yi ci ñaari méthode la ñu am. ñu rek ci naan seeni xel mais mun nañu utiliser sax yeneen. waaw gars moom xam-xam bu ñuul dañ ko dañ cee aay lool. dañuy wax xanaa ah, ismul lasraar. voilà mooy seen lasraar yooyu yu mel noonu. waaw fois sax ci ndox mi fu muy ballee fora bi nga xam ne fu la dëkk bi fu muy ndox mi di bale ci lañ koy sotti dëgg la loolu am na ci ay ñaan ñoo xamante ni ci ay preuve yu leer ci loolu léegi nag loolu tamit léeg da ciy joué mhm. waaw mais léeg tamit dëgër bopp bi tamit am na ak ñëkk am ñoom ni ñëkk ak dëgër bopp waaye ñu leen di ñaanal yàlla rek yàlla indiwaat delloo si waat seeni xel waaye jamono ji ñu toll moom mhm. euh, jamono yeewu la maanaam ñëpp a yeewu ku ñu nax rek yow la neex. waaw ku ñu nax rek yow la neex. incha allah nag ñun ci loolu lañuy ñuy fas yéene nekk. Mhm. te bu soobee yàlla ci teggi suñu tànk. Mhm. maanaam yeewu yeete. waaw yeewu yeete. Euh, ki nga xam ne yonent salaa salaam wala naf wala nafar min kulli firqa mhm. waaw nit ñi yàlla subhaanahu wa taala nee na. Euh, ñi nga xam dañoo dem jàngi ba xam lu leer ñooñu nag bu ñu delloo dañoo war a yee seeni ñoñ yee seeni xeet waaw loolu moo waral euh, coono bi yëpp ñu koy daj waaw te daay bi moom ñaar yi la war a fas maanaam ginnaaw bu mu jàngee mu yëkkati ab réer ci boppam dafa war a fexe yëkkati ko ci ñeneen maanaam dindi ab réer jàng ñaari moo ñaar yi la moo war a la jàngu xam-xamu diine mooy dindi ab réer ci sa bopp après dindi ko tamit ci ñeneen ñi voilà te ci étape boobu la nekk ñaari yàlla mu dëgëral ñu te mu barkeel ko te mu mee ñu sellal te tamit euh, mu def ko ci misaanu xasanaat incha allah waaw dañuy faral di wax ni ñu gisee kuy tukki dañ lay ñaanal ni yàlla na sa tukki bi bokk ci tukki tukki yi dàq ci sa tukki yi waaye ñun tamit mbégte bi ñu am nag bokk na ci mbégte bi dàq ci suñu mbégte yi ndax suñu umra bi moom xam naa ne duñ ko fàtte ndax Cheikh Alpha mu ngi nii bi ma ko contacté démb ni ko maa ngi fii dafa ni dana ma ñëw seet mu ngi nii seet si ma ci hôtel bi lañu nekk macha allah alhamdulilah ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk xam-xamam te barkeel ko te musal ko ci bépp pexey noon ak bépp loxo bu nar a jóg dal ci kawam yàlla na ko yàlla fekk amin ya rabbi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xayaakumullah jazakumullah xeyran barakallahu fikum salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bu baax a baax a ah man nag dama strict de boo ma nee demi ko romb de. every na. def nañ ko. ak ak xam-xamle ak alxuraan si am na bosam yéen am ngeen tey am ngeen. nuyu naa ñëpp ziyaare ñëpp yàlla yàlla barkeeral indi fii ñun ñëpp yàlla dafa ñu ñu am ko. yàlla yëkkati sunna te da koy yëkkati. ndax borom bi moom moo ñu ko dig moom moo ñu ko wax te la mu ñu wax insha allah moom mooy am waaw antumul a'lawna yàlla nee na yéenay kawe ak lu mënta am yéenay féete kaw koo xam ne nag yàlla moo la njëmb ne la yaay féete kaw looy tiit jeex na ñee dañoo uti seeni ñu uti leneen ñu ngemb leen ñun yàlla ngembuñu kon ñun nañu sant yàlla bu baax insha allah sunna ca kaw ca kanam rek man daal li may dénk sama bopp di ko dénk ñëpp nit moom bu la dara jaral nga gannaawal sunna mm-hmm. bu la alalu àdduna jaral mm-hmm. bu la ut tur jaral mm-hmm. bu la ut mbooloo jaral ndax loolu lépp ñëwal na yonent bi yonent bi bañ waaye lan la bëggoon fayu yàlla fayu yàlla na ku ko bëgg ah il faut àdduna xaw a saf tuuti ci yow ndax àdduna yaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir àdduna moom kaso na pour ki gëm li tax mu nekk kaso pour ki gëm mooy ki gëm dafa war a dugg fii tënku ci jaamu yàlla bu ko demee fële yàlla fay ko sa moo tax loolu ñun ñëpp la wax kon maa ngi woo ñëpp ci ñuy woote ci yoon yàlla nañ ci gën a góoru jigéen ji mën na ko góor gi mën na ko boo amee sa benn vidéo sànni boo amee kàddu sànni bul xeeb de xamoo nu muy àgge loolu la yàlla waxoon yonent bi rek in alayka illa al balaax wa ma alayka illa balaax jottali rek moo la war kii àggale man la yàlla yàlla defal jàmm defal ko incha allah rabbi doon lañ leen invité suñu reer bi nag vraiment suñu man mandi bi moom bëggoon nañ ngeen ñëw fii suñu benn xarit bu baax ndeysaan mm-hmm. euh, ku ñuy wax Maahir moom moom fii la nekk quoi moo ñu invité woon nii macha allah ñu ñëw fi vraiment mu defal ñu yëfi naar yoo xamante ne moom ah aw aw yeeg gars yi moom kii nañ fi bu baax a baax a baax ak sama sama mbokk séeréer yi am na sax séeréer bu fi saalit waaye nag alaa kulli haal mbir yi moom noonu lay demee ndax lu neex moom boo ko bëri di ko gis boo ko gisee rek am loo fàtte macha allah barakallah fiikum fiikum barakallah mbaadu séeréer bi ñang la sant. Hmm? de wane nag. waaw gën nga kii yi bëgg lu leen neex. Hmm?